teranga ak réew bu Eburni yàgg am ab lëkkaloo bu mucc ayib yi nga xam ne ni yu bëre dañu ko laloon cay xaatim déggoo yu jot a jaar seen diggante mu di ab lëkkaloo bi nga xam ne ni Abidjan firneel na bébétam gën ko yokk gannaaw bi nga xam ne ni yóndi na fi chef de mission diplomatique bu bees ci wetu njiitu réew bu ñu fal yees Bassirou Diomaye Diakhar fay Sénégal ak Côte d'Ivoire di woyal seen lëkkaloo bi nga xam ne ni moom la ñu sumb ci atum 1972 ba tey ci jamono jooje dakaar ak Abidjan jotoon nañoo sax tëral ab commission mixte bi nga xam ne ni moom mooy gën a jëmmal lëkkaloo bi diggante ñaari réew yooyu. bile commission li ko taxoon a jóg moom mooy gën a mën a dox ci wàllum koom ci ñaari réew yi waaye tamit rataxal seen diggante ci wàllum njaay mi ci wàllum technique waaye tamit ci wàllum cosaan tukkib nemmeeku bu Bassirou Diomaye Faye réewum Côte d'Ivoire mbébét gi mooy jox beneen dayoo lëkkaloo bi nga xam ne ni mu ngi jaar diggante mu Sénégal ak bu Côte mu di ñaari réew yi nga xam ne ni tey lu leen war a boole bëri na lool rawatina ci wàllum pétrole ak gaz ndax bu dee gisement pétrolier ak gazier yu Sangomar ak Grand Tortue Ahmed yu ne Sénégal ba tey tàmbalewuñu production bi Côte moom door na production bu pétrole ak gaz bu Chambalène ba fa ne mu di mbir moo xam ne ni day firnde rek ni ñaari réew yi mën nañoo amal amal lëkkaloo bu am solo ci wàllu boobe ñuy xaar it ñaari njiitu réew yi ngir ñu wax ci wàllum jàmm ak kaaraange ci Afrique sow jant ñu mën a jàpp it ni tukkib nemmeeku bi mën naa dimbale it réewum Sénégal ba mu topp ci tànk Côte d'Ivoire ci wàllum koom ak ci wàllum développement